xeex yi nekk ci diggante Russie ak Ukraine. xeex yi nekk ci diggante Russie ak Ukraine. ñu ñaan yàlla jeexal ko ñu ñaan yàlla ko. ñu leen di ñaan ci ñaan ci yooyu. ne nañ leen di ñaan ci yooyu. waaye sama yoon nekk ci. waaye man de. ay du yam ci bopp ay ñaan nañu yàlla ñu boole leen ci ñaan gi ñoom it yàlla na yëf yi jël ba ci région bi ba ci sous région bi ñoom ñëpp yàlla bu mu bët bay am turu fu mu jaar baax yàlla ci yàlla musal musal ci ñi ko seet ak ñi ko wër ñëpp yàlla ñu yàlla defal yàlla ñu yàlla war a defal ñu ñaan rek ay du yam ci bopp borom Sénégal it yàlla na ko yàlla defal. Sénégal it yàlla na ko yàlla defal. am na jot na de. am na jot na. am na jot na. benn loxo. benn loxo. doo taa jëlee. jullit. këri diine yëpp. këri diine yëpp. war nañu toog war nañoo toog. waxtaan jot naa am. bokk ñoom ñoo xam ne bokk yaa ngi. Ah, yenn katu xëddeen. yenn katu xëddeen dañuy jiisoo laata nga yenn xëddeen ko. Ah, waaw lislaam kan moo ko xale na. sëñ Tuubaa moom lislaam. Seydina Muhammad moom lislaam. lislaam ko moom. yàlla moom lislaam. ak ñun ñëpp nañ leen àndandoo nekk benn jot na la aqida bi benn la. xaayit bi benn la. téere bi benn la. waaw loolu kon lu leen war a wutale. waxdatul aqida. waxdatul aqida. waxdatul ilahi. waxdatul ilahi. yooyu yëpp rek. yooyu yëpp rek. ak kitaab. ak kitaab yëpp rek. yëpp rek ñoo ko bokk. ñoo ko bokk loolu di wute. waaye kon lan moo indi wute. إن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم من سبيله ذلكم تتقين هذا القرآن يهدي للتي هي وبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم واقم الصلاه طرفي النهار وزلفا ان الحسنات يزهدن فنجي توب ñëpp ñëpp ñun daal ku gis safaan moom daal ku gis safaan tereen tereen ak loo ci dégg ak loo ci allahu akbar إلا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض لهم حتى يخوضوا وإما ينسينك الشيطان مع القوم قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم يغفر وبقرة من ذلك إنكم إذا فكرتي وفكرت ñu jàng loolu. ñu jàng loolu xëy bokk jàng loolu.